أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ci dars juróom-benneel ci kitaabu tawxid bunt bi tegu moo topp ci bi fi tegu woon mooy baabun man tabarraka bi shajara aw xajarin wa naxwihima buntëb barkeelu ci garab wala xeer wala lu mel noonu sunu dars bi passé ñoo ngi doon waxtaane nit ñi bëgg bi ñu bëgg barkeelu léeg-léeg dina leen dugal ñu dugg ci bokkaale ak mbir yu mel ni moom looloo tax ab julit war na bàyyi xel mbir yu mel nii ndax mu mun a mooy tandiku bokkaale ci wàllu ci anamu barkeelu léeg-léeg bëgg nit walla bëgg barab walla bëgg place walla bëgg gox walla bëgg dara dana la yóbbu ba dootoo mën a aar sa bopp dootoo mën a fegu lan la lay jural mooy nga dugg ci bokkaale su ko defee ci bunt yu mel nii ab jullit dina ci mën a jaar mën a mooy tëndiku xam bu baax a baax a baax lan mooy bokkaale ci anamu barkeelu suñu dars tey sahaaba bu màgg bu tudd abi waqid al-laythi moom moo ñu nettali sunu xadisu tey mu ne xarajna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila xulaynin ila ila xunaynin wa nahnu hudasaau ahdin bi kufrin wa lilmusrikina sidratun yacufuuna cindaha wa yanuutuuna biha abi waqid nee na ñun dey benn bis dañoo génnoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci benn barab bu ñuy tuddee xunaynin xunayn ñëpp xam nañ ko jàng ngeen ci alxuraan xeexu xunayn place la barab la bu yàlla tudd kii di nettali wax ji nag nee na ñoom dañoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci barab boobu waaye ci jamono yooyu ñu doon ànd ak yonent bi ñoom dañoo nekk ay tuubeen yu bees wa nahnu hudasaau ahdin bi kufrin ay aslamna hadisan wa ahdihim bil kufri qarib mooy ñun ci jamono yooyu ñu doon ànd ak yonent bi ba yegg ci barab boobu ñun ay tuubeen la ñu ngi doog a dugg ci lislaam xamuñ ci lu bari mel ne dañoo dugg tey ci lislaam mu am ñetti fan ñeenti fan ñu ànd ak yonent bi ci barab boobu mu ne ba ñu fa demee la ñu fa fekk ci barab boobu walil mushrikina sidratun yaakufuuna indaha ñu gis fa benn garab garabu siddéem boo xam ne bokkaalekat yi ñu ngi wër garab gi bóof ci garab gi ñu ngi ko wër bóof ci wetam di barkeelu ci garab gi mu ne wa yanuutuuna biha ay yu alliquuna alayha dañu ku ñëw rek léeg-léeg nga gis ku ñëw sax jël mbubam wékki ko simmi ko wékk ko ci garab gi léeg-léeg nga gis ku ñëw jël saakam wékk ci garab gi léeg-léeg nga gis ku jël jaasi wékk ci garab gi léeg-léeg nga gis ku jël saakam bi ku nekk li nga yoroon rek da ngay ñëw wékk ko ci garab gi pour barkeelu ah bi loolu amee xam ngeen ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom yàlla da ko yónni pour mu jëlee fi bokkaale comme gis na mbir mi gaa yi di ko def mu ne wa yanuutuuna biha aslihatahum gaa yaa ngi jël seeni gaa yaa ngi jël seeni ngànnaay seeni bagage di ko wékk ci garab gi yuqaalu laha zaatu anwaat garab gi mu ngi tudd zaatu anwaat noonu la garab gi tudd shajaratun mu ne garab la yu alliqu alayha al mushrikuun bokkaalekat yi ñu ngi ci aj aslihatahum seeni bagage talaban lil baraka gaa yooyu di ci aj seeni bagage lan moo tax ñu ci aj seen bagage mooy pëgg barke bëgg barke kese léeg-léeg nga gis ku jël kaamil daal di koy teg ci kanamu oto soo waajee ba soo laajee waaji waayoo kaamil bii nga teg ci kanamu oto bi lu tax mu ne la heen mu ko ci barkeelu wala kaamil bi aar oto bi nga gis keneen ku ko teg ci ginnaaw oto bi lu ne ngay gis lu ne ak yu mel noonu yu anam yu demee noonu mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba bi nettali nee na fa mararna bi sidratin ñu romb garab gi fa qaala lana fa qulna ya rasul allah ñoom sahaaba yi àndoon ak yonent bi ñu ne ko ij'al lana zaata anwaatin teeng ñoo defal ñun tamit benn garab garabu siddéem bu mel nii kamalahum comme ni ko ñi amee zaatu anwaat allahu akbar fa qala rasul sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar yonent bi ne yàlla rek a màgg innaha sunanu qultum lii ngeen wax mooy yoonu gaa yu njëkk yi innaha sunan lii mooy yoonu gaa yu njëkk ya qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qaalat banu israila li muusa maa ngi giñ ci buur bi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk yéen sahaaba yi tey wax ngeen la waa banu israil waxoon muusa mbokk yi nag xam ngeen banu israil lan lañu waxoon muusa mooy ij'al lana aliha kama lahum aliha defaral ñi yàlla comme ñii nu ñu amee yàlla banu israil dañu ne Moussa defaral ñu yàlla bàyyiwuñu bàyyiwuñu ko bàyyiwuñu ko ba Moussa dem di wax jeeg yàlla ñu ñëw ci saamiri yu saamiri yu ne leen dégg naa leen ngeen di wax ne Moussa na leen defaral yàlla man mën naa ko dajale leen seen takkaay ñu dem dajale takkaayu jigéen ñi saamiri yi daal di ruyal takkaay bi daal di leen koy defal benn nag nag bi mu taxawal ko ci digg dëkk bi nag bi di naññ di yuuxu nag bi dundul ne am na suuf su mu tibb su borom xam-xam yi di wax suuf soosu fu mu jógee daal di koy def ci gémmiñu nag bi nag bi di naññ xam ngeen naññ waaw nag bi di ŋaax xam ngeen buñ dee mbaam dañ naan defa ŋaax buñ dee nag dañ naan defa naññ buñ nee muus dafa ñeew buñ nee xar dafa mbee buñ nee xaj dafa mbëw yooyu yi nuroowul de bu nekk dafa am nu mu tudd ah buñ nee fas dafa ñixal buñ nee nag nag dafa naññ la ñuy wax fahimtum jàpp leen baat yooyu hatta fil lughati al arabia même ci arab sawtu yi du benn aywa fa qaala lahum rasul yonent bi ne yàlla rek a màgg yéen ñii tey tey lii ngeen di wax naa leen defal ngeen gis yéeféer yi di ko def ngeen ne naa leen defar lu mel nii banu israil loolu lañ defoon ñu gis ay nit yuy bokkaale ñu ne Moussa defaral ñu yàlla ijal lana aliha kama lahum aliha qaala innakum qawmun tajhaluun Moussa ne leen yéen nit yu réer ngeen looloo ngi ci suratul araf aya téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yent bi neen la tarkabun na di ngeen soobu sunana man kaana qablakum yoonu gaa yi leen fi jiitu woon bu ñëwee ci anasiru dars élément yi tënk leçon bi hadis bi ñu jàng abi waqaad daan ñu koy nettali abu waqaad ismuhu alxaaris ibnu awf moom mi ngi tudd alxaaris ibnu awf wa huwa sahaabiyun sahaaba la mashhurun ku siiw la maata sanata sitta wa samaaniin mu ngi faatu atum juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn ba muy faatu walahu xamsun wa samaanuuna sana amoon na juróom fukki at ak ñett nee na atabarruku bil asjaari wal ahjaari sirkun di barkeelu ci ay garab wala ay xeer bokkaale la Sénégal réew mi yàlla nattu nu ñun ñëpp ñu nekk fii bokk ci juddoo fi réew la moo xam ne néew na lu fi nit di mucc ci wàllu barkeelu barkeelu dafa yóbbu nit ñi ba dañuy bokkaale te duñ ko yëg indama futiha makka aslama kasirun min ahliha bi ñu ubbee màkk ñu def ko dëkku lislaam ngeen màkk dëkku kufur la woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge Médine ànd ak sahaaba yi ñu takku ñëw ubbi màkka yonent bi dugg ci kaaba gi daaneel xërëm yi fekk na fa ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett ñëpp mu tojate leen ba ñu nekk ay pënd ak poussière am na benn mbooloo wa xaraja fi atun minhum ila hunayn benn mbooloo génn fa jëm hunayn maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yonent bi wa fi tariqihim ilayha ñu ngi ci yoon bii dem yeggaguñu raaw sajarata sidrin ñu gis benn garabu siddéem lil mushrikina bokkaale kat yi ñoo moom garab googu tusamma zaatu anwaat garab gi noonu la tuddoon zaatu anwaat yu alliqu alayha al mushrikuuna aslihatahum bokkaale kat yi ca la ñuy aj seeni ngànnaay yi ñuy xeexee yu azimunaha ñuy màggal garab gi ngir garab gi defal leen barke ci seen ngànnaay yi ku ñu xeexal ñu gaña la wa yuqimuuna indaha ñoom yemuñ ci sax waaye dañu faa buuf léeg-léeg nga gis ku fa nekk weer di barkeelu wa yatabarrakuuna biha ñuy barkeelu ci garab gi di dagg ci xob yi di dag di xas garab gi di dagg ci reen yi di jàmb aka naan aka sangoo ka raay léeg-léeg nga dem ci barab ñu ne benn kilifa moo doon toog fi kili place boobu dañ koy raay ba place bi jeex tàkk il fallait que ñu jëlaat ciment bu dee ab tabax la woon bu ñu ne kilifa gi fii la doon wéeru bi muy jàngale nit ñi dañuy raay place bi ba mu def ay pax ndax raay bu bari loolu bokkaale la bu dee garab la garab gi dinañ ko raay ba garab gi jeex wala garab gi mu jowow loolu bokkaale la dañu dem màkk ma ànd ak ay jigéen ñu ñëw kër gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo tey boo demee màkk bibliothèque lañ ko def kër gi benn étage kese la moom lañ ko def étage lañ ko def def ko bibliothèque ñu ñëw rek nit ñi commencé raay kër gi benn naar xool leen man leen bu leen ko def benn naar bi tax garde xool leen ba ci ak mu ne haza shirk mu ne ya cheikh haza shirk man leen mbokk yi wuy leen kii nee na lii bokkaale la bu leen raay ñu ne dañuy raay mu ne leen bu leen raay lii ngeen di raay ciment la ak suuf suñu def ay birig tabax ko fii soo raayee laaloo laaloo yonent bi ciment bi nga laal ak suuf si ciment ak suuf fu mu jóge tey bu ma nee damay barkeelu ci jàkka ji bu ma laalee karo yi karo yi siin la jóge ñu ko defar sax amaana du ñu ay jullit kon raay ko amul njëriñ mu ne leen lii amul njëriñ fii da ngeen di ñëw fii rek aj màkk fii sax ñëw fi bokk ci maanaam da ngeen di ñëw rek ziar si pour am xam-xam pour yow sa tànk nga ni man de wax dëgg yàlla dem naa ba barab bi yonent bi juddoo kër ga mu juddoo dem naa ba foofu loolu kese la waaye nga ñëw di raay tabax bi amul njëriñ mun leen lii ciment la ak suuf fa ngeen jóge am na ciment ak suuf mais nit ñi duñu mënuñu dégg loolu ñii tamit ba ñu rombee gaay yi di bokkaale dañu ne yonent bi saa salaam defal ñu inda isin ci jamono boobu talaba haula illazina aslamu hadisan ñii nga xam ne ñoo tuub ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuub bu bees comme ñoom xamaguñu lislaam dara seen pas-pas dëgëragul ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam an yaj'ala lahum sajaratan mislaha ñu ne yonent bi utal ñu garab nga sampal ñu ko ñu nit bu ñu ñibbee di ziyaare garab gi pour ñoom jàpp nañ ne gis nga looloo tax nekkul ne lépp loo gis nit ñi di def rek dëgg la tey bëri na ci ay ñun ñun ñi ku sànku li la sànk mooy jàpp nga waa ji wala diw wala ñii wala kii li muy def baax na rek nga def loolu du diine diine da ngay laajte ndax yàlla wax na ko yonent bi wax na ko suñ la nee yàlla santaane na ko yonent bi jàngale lu ñu koy defee rek defal bul taxaw defal lan moo tax ñuy julli yàllaa ko santaane yonent bi wone nan la ñuy jullee kon boo jullee da ngay am tiyaaba koor lu tax nga koy def lu tax ngay woor parce que yonent bi yàlla moo ko santaane yonent bi jàngale nu ñu koy defee soo ko defee da ngay am tiyaaba bépp jaamu yàlla bu yàlla bëgg ñu koy def yàlla bi mu ko santaanee ba pare wax na yonent bi jàngale nu ñu koy defee pour loolu du réer ñii bu ñu waxee loolu ne yonent bi na leen defal garab ñu ci barkeelu zannan minhum anna haza al amru mahbubun inda allah ñoom bañ koy wax est ce que ñoom mbokk yi ñii ba ñuy wax lii dañ cee jublu woon bokkaale ah bokkaale lañ ci jublu woon tontu bi mooy déedéet dañoo jàppoon ne ñoom kat comme gis nañ ñii di def bu leen ko yonent bi defalee lu baax la njox seen njortu baxoon na da ngay dégg benn waaye ne non man lii dama koy laal rek jubluwuma ko ci sax parce que xam naa ne lii moom waaye nag damaa gis nit ñi déedéet jublu nga ko ci jubluwoo ko bul ko def parce que fi mu la yóbbu ci bokkaale la la yóbbu misaal bu ñu amoon tey benn photo bu ngan ñu def ko fii photo nit ku baax di ko raay su yàggee xam nga fu mu ñuy yóbbu ñun ñëpp mooy bokkaale moo tax boroom xam-xam yi di tere ku takk photo ak yeneen ak yi ci aju mu ne walam yaqsidu maxaalafatu amri rasul est ce que ñi ànd ak yonent bi seen xel ak xalaat ba ñuy wax yonent bi na leen defal garab seen jubluwaay mooy dañuy wuute ak yonent bi buñ doon wuute ak moom duñ ne yonent bi defaral nu dañoo ñëw ba ci moom ne ko defaral nu kon jubluwuñ ci loolu walakin li kawnihim aslamu hadisan ndax ñoom lii lépp nag li ko waral mooy dañoo dugg ay tuubeen lañ ñu bees ñu dugg ci lislaam te xamuñu lislaam looloo tax ndeysaan Moustapha Gueye day faral di wax ci ay bandam wala ci ay jotaayam Sénégal ay tuubeen lañ mais réellement est-ce que ñun tuub nañ parce que ku tuub mooy ku bàyyi la nga nekkoon jël lu bees li nga dugg ñun nag bàyyiwuñ li ñu nekkoon ba pare bëgg a tuub loolu mooy wax ci walakinnahum aslamu hadisan xufiya alayhim anna hadha al amru yauddu shirkan dafa làqatu ci ñoom ne lii ñuy wax bokkaale la xamuñ ci dara moo tax ñu ñemee taxaw ci kanam yonent bi naan ko defal ñu garab ñu bokkaale yàlla parce que xamuñu fa ankara rasul sallallahu alayhi wa sallam alayhim zalika yonent bi bañ affaire bi yemul sax ci bañ waaye fa ankara lañ wax dafa sib mbir mi bañ ko dàq ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alayhim ci ñoom wa bayyana mu leeralal leen anna talabahum haza shirkun mu ne leen gis ngeen wax ji ngeen wax ne naa leen defal garab rek bokkaale ngeen wax ji rek bokkaale la waxuma laak nag ngeen laal ko wax ji rek bokkaale ngeen yàlla ah te yemu leen sax ci bokkaale wa shabbaha maqaalatahum bi qawli bani israil li muusa alayhi salaam mu ne leen yéen sax waxatuma léegi bokkaale ngeen mais nuroo ngeen ak waa banu israil kon du lu ndaw de yemul ci wax leen bokkaale ngeen waaye def leen ne léegi yéen ak yahudi yéen a yem ndax yahudi ñoo ne woon Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha defaral ñu yàlla comme ni ñii amee yàlla ñu gis ay nit yuy jaamu yëkk ñu bëgg am yàlla yëkk dañuñ ci dañuñ ci ba saamiru yi defaral leen yàlla yëkk boobu li annaka la kullan minhuma talabun an yaj'alu allahu lahu maa yuallihuhu wa ya'buduhu min dunillah mu ne ñoom ñaari ñëpp ñaari kuréel yëpp bu dee jullit yi tuub yu bees ànd ak yonent bi bu dee waa banu israil ñaari kuréel yëpp ñaari mbooloo yëpp dañoo sàkku jaamu yàlla te sàkkuwuñu yàlla dañu bëgg a egg ci yàlla te duñu jaar ci yàlla li mu santaane mais nañ jaar ci weneen yoon ba yegg ci yàlla mbokk yi ñetteel ci anasir ñaareel ci anasiru dars mooy axbara rasul at tahzir min at taqlid al mushrikin dañ ñuy tere ñuy toppandoo ay bokkaalekat dañ ñuy tere ñuy toppandoo bokkaalekat gis nga diina ji muy lislaam tey dugal nañ ci yu baree baree bari te bokk ci waaye toppandoo moo ko waral dinaa faral di wax ne anniversaire anniversaire jullit yaa ngi koy def wala defuñu ko ñu ngi koy def fan lañ ko jële léeg-léeg nga gis ku doomam am ñetti at wala doomam am at mu organiser ko anniversaire kooku benn la mariage bu ñëwee tàkkusaan ci ngoon ci kanamu imaam ci jàkka ji imaam takk ba pare ba nit ñi tasaaroo ku góor koo ji ku jigéen ki fan la ñuy daje ji réception feccukaay bi lan la waa ji di indaale benn bàggu mariage sol costume bu ñuul xale bu jigéen bi dem salon ñëw sol robe bu weex buy diree ku ci suuf takki fleur ñu ut ay hôtesse loolu fan lañ ko jëlee toppandoo la ñaar yi nag laa ñemee wax ñaar yi ci laa ñemee yem ndax yi moom kenn moomu ko waaye yeneen di ñemewuma koo tudd te yëpp jullit ñi dañ koy def di toppandoo yahudi ak nasaraan yi ci ngénte yi ci céet yi même ci dëj même ci dëj da ngay gis ñuy toppandoo yahudi ak nasaraan yi même ci dëj fi gën a grave dëj laa wax dëj ku dee ñuy toppandoo yahudi ak nasaraan yi kon dañ ñuy tere ñuy toppandoo rawatina nag ay bokkaalekat axasa rasul sallallahu alayhi wa sallam an wuqui shirki fi hadihi l umma mushabihatun li umami sabiqin li umam sabiqa min alyahud wannasara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xabaar ne xeet wii mooy julit yii danañ toppandoo xeet yu jiitu woon ci yahud ak nasaraan yonent bi daf ko xabaar innakum sa tattabi'uuna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira xatta law daxalu xujrata dabbin la daxaltumuuhu qaalu alyahud wa man wannasaara qaala faman yonent bi nee na yéen jullit yi di ngeen toppandoo yahud ak nasaraan di leen topp di leen topp ba ñooñu bu ñu duggoon ci ay paxi mbëtt sax di ngeen fa dugg sahaaba yi tiit ne ko ñun yahud ak nasaraan ñu toppandoo leen mu ne ñan ñoo fi nekk ñu dul ñooñu bu ngeen toppandoowul ñooñu ñan ngeen di toppandoo tey xoolal suñu col yi jullit yi jullit yi góor yi jigéen yi tey bu ñu demee ba jullit bu jigéen amatul sër day sol tubéy bu dang bu seere fan lañ ko jële ndax loolu du ci yahud ak nasaraan waxoon naa leen sànq ne ci ñaar yee laa ñemee woon yem kon ixwaan yi yonent sallallahu alayhi wa sallam ne dinañu toppandoo yahud yi ak nasaraan yi haysu talabu alihatan ma allahi ndax gaa yi sàkku nañ beneen yàlla bu dul yàlla wa huwa xabarun bi maana zammi xabaar bi nag yonent bi wax ko xabaar bi lan lay jur mooy def ko ŋàññ moo tax mu xabaar ko soo gisee yonent bi naan di ngeen ko def manaa du pour ñu def ko waaye def ko ŋàññ moo tax mu wax ko wa innama qaalahu lana sallallahu alayhi wa sallam li nahdarahu yonent bi wax nañ ko pour ñu moytandiku hadis yi wax ci yonent bi ne di ngeen toppandoo yëwut ak nasaraan dafa bëri soo ko doon lim doo fi jóg gis nga ci nodd bi jullit ñi tabaxee jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare boobu nodd ñëwagul saxaaba yi dañoo proposé yonent ne yonent nañu ut benn béjjën béjjënu nag ñu bënn ko defar ko benn mbiib su julli jotee rek ñu daal di koy ëf mu daal di yuuxu jullit ñi bu ñu ko déggee ñu xam ne julli jot nañu jullis mu ne kon dañuy nuroog yahud yi la la leen yonent bi tontu kon dañuy nuroog yahud yi kenn ne kon nañu ut cloche xam ngeen cloche xam ngeen cloche mooy lan mooy jóolóo li loolu ñuy fëgg muy yëngat di yuux su ngeen demee ndar ku fanaan ku musa fanaan ndar ci capital bi ku musa fanaan ndar loolu moo lay yee huit heures nga dégg mu naan kañ kañ kañ moo lay yee yonent bi ne kon nañ ut kolos mu ne déedéet kon dañuy nuroog nasaraan yi gis nga ñaar yu jullit yi wax nañ ko ut yonent bi lànk buñ ko ut ndax buñ ko defee dañuy nuroog ñoom tey nag buñ leen toppandoowee ci seen lépp jël seen lépp seen lépp ñu jël ko di ko dund mel ni ñoom kon kay jeex na wa qad waqaa shirk fi haadihi l umma kama axbarana sallallahu alayhi wa sallam bihi mbokk yi bokkaale tàbbi na ci xeet wi comme ni ñu ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xabaare wa haada ilmun min alaami nubuwa lii xam-xam la lii daraja la lii màggaay la lii kéemtaan la bu yonent bi am yonent bi toog septième siècle naan jullit ñi danañ defi sàngam loolu tey ñun ñëpp ñu def ko lii day wane ne yonent bi saa salaam yàlla moo koy xabaar wax nañu loo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët ba mu koy wax ñun ñëpp kenn judduwul kenn ci ñun maamam judduwul waaye tey lii yonent bi wax teg na ci bëtam am na fi ñuy jaamu bàmmeel wala bàmmeel jël ay bàmmeel tabax ko def ci fleur fu ñu ko jëlee aadaay lan la aadaay ñan la dem leen yoof yoof a ngi nii jege deux cent ngay paas yegg boo fa demee nga fekk fa ay château ay château bàmmeel yoo xam ne château la moo gën a rafet kër yi ay étage nga fay fekk bàmmeel bu ñu tabax étage bàmmeel bu ñu def caro marbre def ci photo def ci fleur def ci coquillage def ci cuuraay bàmmeel yi dañ koy jaamu léeg nga gis ku ñëw ci bàmmeel di ziar si bàmmeel simmi dàllam simmi mbaxneem raam ba ci bàmmeel bi ni kuruf jonkon di toroxlu ci bàmmeel dafa xaram kii dafa dee mënul dara bu mënoon dara du tëdd fi ziare ji bàmmeel yonent bi sant nañ ko mais du ko comme niñ koy defee ñun yonent ne woon ñaar na ngeen ko def bu ngeen yégée ne seen xol yi wow na jàng leen alquran dem leen ziare ji bàmmeel yi ndax daf leen di fàttali dee bàmmeel boo fa demee dafa la fàtt dafa la war fàttali dee yonent bi nag nee na bokk na ci màndarga yowmal qiyaam li wane ne yowmal qiyaam jege si na nga romb bàmmeel bëgg bëgg waa ji génn ci bàmmeel bi yow nga tëdd fa aka neexoon bàmmeel bi nekk sama bàmmeel ngay wax loolu loolu màndarga yowmal qiyaam la romb bàmmeel bëgg a tëdd ci bàmmeel bàmmeel bi bëgg borom bàmmeel bi génn nga dugg tey loolu am na ñun ni ñuy ziare ji bàmmeel li ci ëpp bokkaale la waaw ay kuy ziare bàmmeel ñëw di toroxlu ci bàmmeel bi bàmmeel kenn du fa toroxlu kenn du fa summi mbax na kenn du talal ay loxo ci bàmmeel di ñaan bàmmeel kenn du kenn du tiim bàmmeel tàllal loxo bàmmeel borom bàmmeel bi amul lu muy maye ku dee la au contraire dañ la ne yow nga ñaanal ko ndax yow yaay dund ci benn téere Alaaji Malik rahimahullah bu tudd nuuniya dafa wax bu doy waar mu ne ki tiim ci bàmmeel di ñaan kenn gënu koo dof benn waay dafa gis ku tiim ci bàmmeel di ñaan di yuux naan sëñ bi visa laa bugg visa réew mi dafa metti di di wax bay jooy mu xool waa ji ne ko salaamaaleykum waa ji xool ko mu ne ko ki ngay ñaan nekku fi dafa dem Dakar waa ji ne teg xool waa ne ko yi ne waa ji xanaa da nga dof kii dee nga naan dafa dem Dakar mu ne boo gëmoo ne dafa dee kay doo ko ñaan kenn mënta tiim ci bàmmeel di wax ba borom bàmmeel bi dégg la yàlla moo ko wax ci alquran wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la wax laa yastajibu lahu ila yawm alqiyamati boo fi taxawee di wax ba yawm alqiyama kii déggu la ndax mu ngi ci beneen adduna yow yaa ngi ci beneen adduna bokk leen monde bu ngeen nekk kii mu ngi alamul arwaax yow yaa ngi alamul dunia bokk leen fu ngeen nekk allahu akbar ah misaal rek bu gàtt ñun ñi ngi dund ñu ngi ci àdduna ñu ëpp ci ñun suñuy bàyyi ngi dund ah wala tey kenn ci ñun buñ ko doon mbugal fii ci jàkka ji ba papaam nekk fële ñu koy dóor fii muy yuux di woo papaam est-ce que papaam day ñëw te papaam ngi dund mu ngi ci kër ga lu tax ñëwul parce que dégg léegi nag bu dee daa dee nag bii mu ngi ci dund mu ngi ci àdduna di dund mu ngi ci fii rek distance nga koy duma muy yuux di waa baayam baayam mënut a ñëw léegi nag nga mu baayam bu deewee nag bu fekkee ki dund moo la déggul mastama ku dee foog ñu delloo si xel yi mbokk yi mu ne xeet bi tey tàbbi nañ ci bokkaale lenn ñuy dugg nañ ci jaamu bàmmeel al yawma qad ittaxazuha aliha am na ñu def bàmmeel yi yàlla ay yàlla ma allah yaakufuuna indaha dañuy bóof ci bàmmeel yi di ci sotti parfum di tabax bàmmeel yi di ci def ay fleur di màggal bàmmeel yi wa yatalammasuuna biha albarka ñuy sàkku ci bàmmeel yi barke wa yadfa'uuna laha alsadaqat yenn saa yi sax ñu saraxeel bàmmeel bi ñu saraxeel bàmmeel bi waaw léegi nga gis bàmmeel boo xam ne dañoo jël nit di ko fay nit di liggéey ci bàmmeel bi bu ngeen demee Yoff di ngeen ko gis koo xam ne bu ñëwee mooy bale bàmmeel bi fomp karo yi raxasaat xeer yi ba ñu set sottiwaat ci cuuraay dugal ànd bi def ci cuuraay te li gën a garaaw mooy dugal armeel safara nga dugal ci ay armeel nga jël safara dugal ko ci ay armeel néew yi safara rek la ñu ragal nga dem di leen tiital armeel kenn du ci dugal safara man gis naa ñu ñu ñu boyal bar bay arñe armeel yi ba pare taal taal ñax mi te ñax bu saxee ci bàmmeel kenn du ko buddi mais gis nga réer ñàkk a xam yoon bi saa salaam dafa romb ñaari bàmmeel mu dagg xob bu verte teg ko ci saxaaba yi ne ko lii nag mu ne ñaar ñi yàllaa ngi leen di mbugal waaye yàlla dina leen bàyyi ba xob bi fendi ba xob bi wow kon lu verte li kenn waru ko dindi mais nit ñi dañ koy buddi bay ngay dégg ñu ne tey dañuy bay armeel yi ne ñëpp ñëw gars yi yor ay heure dem ci bàmmeel di ko bay réer la ñu ne yonent bi ñaar ñii lan lañ def ba yàlla di leen mbugal mu ne kenn ki bu demoon wanag du wisu day sawte du wisu xale yu góor yi ñu tawax ci mbedd yi dox ba ci yàgg rek jàdd ubbi fermeture saw ba pare dugalaat sawte doo wisu dañ lay mbugal bàmmeel ñu ne keneen ki mu ne kaanat nammaama rambaaj la woon danaan yàq diggante ay nit di jaxase mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ñii lii lañ doon def mu jaral leen sax ñuy saraxeel bàmmeel yi wan nazuur ñuy nësëral bàmmeel yi wa yasaluunaha qadaa'ul haajaat kama yasaluuna rabbahum ni ñuy laajee yàlla ni ñuy ñaanee yàlla noonu la ñuy ñaanee ba da ngay gis koo xam ne du ñaan yàlla moom du ñaan yàlla moom bu amee soxla ci bàmmeel lay dem ñaan bàmmeel bi mbokk yi billahi wallahi wa taalahi réew mi ñi ëpp ci nit ñi ay bokkaalekat lañ naka ngay bàyyee yàlla di ñaan ku dee ku dee mënatul dara kenn du ko ñaan mënoo ko ñaan ba may la sooy ñaan lan lañ la wax dama nga jàpp nga julli ñaar raak nga yëkkate yàlla say loxo yàlla nee na wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i isa daan bu la gaa yi laajee fan laa nekk man yàlla damaa jege ku ma woo ma wuyu la kon boo amatee soxla bàyyil ba mu guddi ba ñëpp di nelaw nga xam ne am na koo xam ne moom du nelaw nga lal sa sijaada jàkkaarloo kooku wax ko say aajo mu faj ko benn waay dafa tudd dafa tudd guddi mu gént ñu ne ko demal jëlal sa oto bi nga def ci ration ba mu fees nga yóbbu ko kër diw mu yeewu ci guddi gi arrière oto bi def ci lépp lu nit di soxla ci këram mu dem fëgg waa jooju waa ji ubbi mu ne ko lii ci oto bi yëpp yaa ko moom maal bi waa ji wàcce lépp bi waa ji wàcce bagage yëpp bëgg a dem ba caaga daal defaat demi tour ñëw ne ko ah salaamaaleykum am lii sama carte visite la ak sama numéro téléphone so su lii jeexee rek woo ma ma indiwaat mu ne ko du ma la jëlal yóbbul soxlawu ma ko mu ne ko ah lu tax mu ne ko ki la teree nelaw ba nga indil ma lii ci kooku rek laay waxal ki la teree nelaw ba nga indil ma mu ne ko lii bi nga koy indi fi maa la ko wax mu ne ko déedéet mu ne noo ko fi indee mu ne dama gént ñu ne naa ko indil mu ne man dama ñaan yàlla man yàlla rek laay ñaan du ma la ñaan jëlal sa carte yàlla du fi nekk may taal la nit sama loxo yóbbul soxlawu ma ko est-ce que loolu pas-pas la de loolu imaan la de ah loolu tolluwaay la mbokk yi waaye balaa nit mën na toll foofu billahi wallahi wa taalahi nit mën na toll foofu day fekk nga jox yàlla sa bopp nit rek nit nit nit mbindeef nii nit mbindeef tey boo toogoon léegi ñibbi sa kër ñu tegal la reer nga bëgg a reer benn waay ñëw sol yére yi tilim jaxasoo poussière ñëw ne vip sa kanam di jooy naan la sëñ bi wallahi alazim juróom-ñaari fan a ngi nii sama sama sama gémmiñ gi lekk dugg ci looy wax waa jooju bu dee kenn ci ñun bi looy wax kooku da nga daan ko indil leen ko ndox ak saabu ñu indil ko mu raxasu ba set nga ne ko bismillah te su lekkee ba pare doo ko bàyyi noonu mu dem de ah noonu nga koy bàyyi mu dem waaw yàlla nag bu fekkee mbindeef ngay def loolu rek li ci poosam ak wala li ci armoire am bi mu génne ko jox la ko yàlla nag nga bàyyi ba ñëpp di nelaw nga xam ne moom moo dul nelaw nga ñëw rëpptal sa bëtu oom yi sa jëbi nga teg ko ci suuf sujjóot foofu yàgg fa di jooy di ñaan sa borom yonent bi nee na yàlla nee na rus naa loxo yu yëkkatiku tàllal ma ko yo loxo yooyu dellu te man yàlla defuma ci dara man yàlla rus naa loolu kon soo gisee ñun ñu mel nii rek mooy ñun la sunu digganteeg sunu borom moo setul waaye wallahi sunu digganteeg sunu borom bu setee du ñu am problème mu àdduna du ñu am problème mu àllaaxira mbokk yi lii may lim nii asbaabu tabarruk al mamnu lii barkeelu bu ñu tere la dafa am ay façon barkeelu yoo xam ne dañ koo tere yii may lim nii ci la bokk asbaabu tabarruk al mamnu bi ci njëkk mooy al jahlu bi tawxid wa ma yunafi wa yudaadi ku xàmmewul tawxid lan mooy tawxid waroo barkeelu ci dara ku xàmmewul nan la ñuy wéetalee yàlla lii bokkaale la wala wéetal yàlla la lii war nañ ko def wala waru koo def soo ci duggee rek dugg nga ci lu ñu tere moo tax ku xamul tawxid warul barkeelu ci dara ñaareel mooy alxuluwu fi saalihin ëppal ci nit ñu baax ñi day gis koo xam ne bu buy dem ci ku baax ku baax kaa ngi di toog day simmi mbax na bi simmi veer yi diraam loolu bokkaale la yow da ngay dugg ci jàkka doo simmi sa mbax ne nga bëgg dugg ci néegu mbindeef di simmi sa mbax na ndax am na ci kaw suuf place bu gën a màgg jàkka wax leen ma ah waaw lu da nga dugg ci jàkka ji tàllal say tànk ah toogee nu mu la neex sol sa mbax na di wax ci kaw nga dem ci kanamu nit simmi sa mbax ne ne nguruf ci suuf kenn déggatu sa baat si géetoo tax sa bopp lu bokkaale la bokkaale la bokkaale weesuwul loolu benn waay dafa dugg ci benn kër di ziyaare kilifa ga dëkk ci kër ga am ku mu bokkal koñ bi ñoom ñaar ñu daje fa waa ji ne ko la yow da ngay ñëw fii nekk mu ne ah dama fi ñëw kay mu ne ko yow de bëgg naa la ngir bëgg naa la tey yow de tey bëgg naa la waa ji ne ko ñaataat may daje yow ci jàkk ji bëggoo ma tey ñu daje ci néegu kii nga bëgg maa bëgg mbëggeel googu du dëgg dëgg la wala dëgg man ak yow ñu daje ci jàkk bëggoo ma ñu daje kër kii nga bëgg ma kon kii moo la gën a foor ci yàlla loolu ñaata yoon ngeen koy gis maa ak yow ñu daje ci jàkk ji bëggoo ma ñu daje kër diw rek ah yow diw mi nga ne ko man kii kii mooy sama lépp rek yow yow bëgg naa la bis ni ki tey ndeysaan dama am doom sama taw bi mu juddoo dama am benn xarit bu tudd Serigne Bassirou Mbacke Serigne bu mag la mu ngi mu ngi HLM Paris ma wax ko ko ma ne ko Serigne bi daal dama mun nga ñëw ci tudd bi mu ne ma incha allah dinaa ñëw tudd bi jot ma ne xaar leen ko ba mu ñëw ñu xaar ko mu ñëw ñu dem jëli xale bi mu ñëw gars yi gis ma rek ni allah ah oustaz yow nekkee kilifa nga waay ah yow de bëgg nañ la ngir yàlla ma ne waaw lu tax kii sama xarit la ku baax kay xaritu ñëpp nga war a doon kon mbir mi du loolu mbir mi yàlla moo ñu war a boole suñuy bëggante dañu war a bëggante ngir yàlla waaye waruñoo bëggante ngir ay doomu aadama waruñoo bëggante ngir ñun dañoo bokk xeet ay tukulóor lañ ay séeréer lañ ay olof lañ déedéet dañoo war a bëggante ngir yàlla moo nekk suñu diggante mahabbatan lillah benn waaye day dem ci naaj bu tàng di seeta ji benn xaritam yàlla yónni benn malaaka malaaka bi nekk nit ne demal nga ni waajale fu mu jëm ci naaj bu tàng bi fekk waajaa ngi ci digg àll bi malaaka bi ñëw ne ko salaamaaleykum góor gi foo jëm ma maa ngi jëm ci dëkk bi loo fa yuti ma am sama benn xarit bu may seeti mu ne ko dafa am intérêt yu ngeen bokk déedéet da ngeen a bokk tool déedéet da ngeen a bokk marché bu ngeen di liggéeyee déedéet da ngeen a bokk benn natt bu ngeen di cotiser mu ne déedéet waaye mu ne naaj bu tàng bi lu foo jëm mu ne dama koy seeti ngir yàlla ngir yàlla dong moo tax ma koy seeti allahu akbar mu ne ko yàllaa ma yónni ci yow naa la bégal ne la sa jéego yi bi nga tàmbalee di dox ba fii nga yem yàlla jéggal na la bàkkaar yépp ba fa ngay yegg yaa ngi jox ci dër aljanna ba ba ngay yegg xoolal ndeke bëggante ngir yàlla bëgg ngir yàlla nit soo koy bëgg bëgg ko ngir yàlla bul ko bëgg ndax yéen a bokk ndey ak baay ndax yéen a bokk nangam ndax jullit la bëgg ko ngir yàlla moo tax alxuraan dañu nettali ne al axilla baaduhum li baadin adduwun illa al muttaqin ëllëg yowmal xiyaam ñëpp ñu ànd te ànduñu ngir yàlla ay noonu la ñu nekk ba mu des ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñooy ànd ci àdduna di bëggante ñooy dem àllaaxira bëggante ñetteel mooy atashabbuhu bil kuffaar nuru nuru lu yéeféer yi lu ñu tere la ci seeni xew ci seeni col ci seeni ci seeni dañ ñu koo tere ab julit du nuru nuru lu yéeféer ñeenteel taazimu asaar di màggal ay ay jeexital place yu jeexital nga koy màggal dañ ko tere awil itiqaadu biha baraka wala nga jàpp ne place bi am na barke nga ñëw di foon place bi wala nga nga ci nga koy raay wala dañ koo tere ci islaam kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yataabadu fiihi ka xaari xira mu ne xaaru xira xam ngeen xaaru xira mooy xeer bi yonente bi saa salaam doon dugg balaa yàlla di ko yónni ba jibril fekk ko fa da ngay gis nit ñi bu ñu aji jee màkk nit ñi dañuy ñëw di dugg ci xeer bi loolu dañ ko tere yonente bi ba mu fay dugg da doon wéetal yàlla di ko màggal ba jibril fekk ko fa tey ñun bu ñëwee di fa dugg di raay xeer bi ban njëriñ la am yonente bi dafa doon jaamu yàlla jaamul woon xeer bi mais dafa doon nëbbatu di jaamu yàlla wa hajaratu qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent bi bàmmeelam biñ ko suulee ba pare dañoo jël benn birig samp ko ci kar ci wetu bopp bi pour fuy wane ne fii mooy bopp bi ngay gis nit ñi ci jamono boobu nit ñi ñëw di raar birig bi dañ ko tere wa amma hajaratul aswad bu dee xeer wu ñuul wu nekk ci biir kaaba gi nag fa innahu laa yatabarraku bihi wa innama yataabadu llahu bihi xeer bi kenn du ci barkeelu waaye xeer bi dañ koy jaamoo yàlla gis ngeen alquran moo ñu nettali ci suratu qurayshin lan la yàlla wax fal yaabudu rabba haza al bayt waxul fal yaabudu al bayt de waxul jaamu leen néeg bi lan la wax nañu jaamu du kaaba gi la ñuy jaamu waaye kan la ñuy jaamu borom kaaba gi dégg nga wax bi yàlla fal yaabudu na ngeen jaamu rabba boroom gis nga haazal bayt waxul fal yaabudu al bayt jaamu leen néeg bi déedéet dañuy jaamu boroom néeg bi kon xeer bi du xeer bu ñuy jaamu waaye xeer buy bu ñuy jaamoo yàlla la xeer bi kenn jaamuwu ko mu ne kama qaala Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Omar wane na ci misaal bu rëy Omar dafa ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon dara desul mu ngi fóon xajaratul aswad mu ñëw ba ci xeer bi mu taxaw di wax ak xeer bi ñëpp taxaw di déglu omar ne xeer bi alimtu annaka xajaran la tadurru wala tanfa walaw lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi yow xeer bi xeer kese nga doo jëriñe doo lore amoo looy jëriñaate amoo looy lore yow xeer bi su ma gisuloon yonent bi di la fóon du ma la fóon mukk mu daal di fóon xeer bi dem kon lu tax Omar fóon xeer bi parce que gis yonent fóon xeer bi moo tax mu fóon ko wa lizalika mbokk yi looloo tax laa yajuusu du dagan an yatajaawazu fi lxaddi lmashru du dagan ci julit mu dépassé fi ko charia l'islam wax sajaada bi ilimaan bi moom moo fi nekkoon kilifa gi moo ci daan toog wala ci la daan jullee mu dee rek ñu jël ciseau kuppati ko waaw kilifa gi de fii la doon toog ku ci bëgg a barkeelu na nga indi 10 000 ñu jaay morso morso 10 000 sajaada bi amul njëriñ sajaada kese la ndeysaan benn waay dafa yor sajaada mu ne ma oustaz ma ne ko mu ne ma gis nga bu ma sonnee rek sijaada bi màkka laa ko jëndee woon bu ma sonnee rek guddi du ma nelaw dama koy lar rek tëdd ci ma ne ko pour lan mu ne màkka laa ko jële ma ne ko sijaada bi siin la jóge juróom ko yóbbu màkk siin waaye ko defar marchandise la mu ñu yóbbu màkk rek nga jënd ko fa mu ngi mel ni nga jënd fi marchandise xam nga nit ñi duñu bàyyi lool xel da ngay gis ku ne sama mbax ne mi màkk la jóge màkk jógewul màkk de siin la jóge dañ ko faa indi loongu wala mu ngi jóge Inde marchandise la boo fa jënd mbax na mi nga jënd ko màkka tekkiwul ne moo gën sa mbax na yëpp yi nga am tekkiwul lool de mbub mii nga jënde ko màkk tekkiwul ne moo gën mbubb yi nga am puisque mbub mi jàllaaba bi Maroc lañ ko defaree doo ko yóbbu màkk nga dem fa jënd ko boo toogoon fi Sénégal di am na fi ay jàllaaba fi mu nekk boo demee Rue Mohammed 5 am na fi jaay ay jàllaaba am na fa sax fu ñuy jaayee manto imam màkk yi est-ce que day tekki ne boo ko solee rek mbub mi moo gën ci mbubb yi kon du affaire mbubb du affaire kaala du affaire mbax na mbir mi mbirum jaamu yàlla la loolu foog mu leer suñu bopp mbokk yi kon julit war na xool fi sharia santaane mu yem fa wala yajuuzu liman istaslamahu an yamsaha ala badinihi aw waladihi du dagan ci julit muy raay ay yaram ah kii doomu diw diw la rek nga nga nga jàpp ko di ko raay kii mooy diw rek nga jàpp ko di ko raay loolu du dagan ci jullit mu koy def faalal muslim war nab jullit an yatafaqaha fi diin mu jàng ndax mu mën a ràññee li mu war a def ak li mu warta def ñun ñëpp mbokk yi li ñu tax rek ñu mel ni mooy dañoo jàngut foog ñu delluwaat jàngi gis ngeen laxdari damay faral di wax lu baree baree bari téere la boo xam ne lim la njëkk a wax ginnaaw ngëm yàlla awalu maa yajibu alal mukallaf mu ne tasxihu imaani yi lu mu ci teg mu ne thumma maarifatu maa yuslihu bihi farda aynihi ka ahkaami salaati wa tahaarati wa siyaam li war jullit ginnaaw ba mu dëgëralee ngëmam mooy mu jàng soo jàngul nag doo mën a ràññee kon foog ñu jàng ngir ñu mën a ràññee li dagan ak li daganul wa yaarifu at tawxid mu jàng xam lan mooy tawxid min ashirki lan mooy diggante tawxid ak bokkaale xata laa yaqa'u fiihima ba du ci dugg du dugg ci fiihima yufsidu aqidatahu ba doo dugg ci luy yàq sa pas-pas wa yaarifu tawxid min ashirki xata laa yaqa'u fiihima yufsidu aqidatahu nga dugg ci tawxid moytu bokkaale balaa sa diine di yàqu su ko defee mbokk yi lii moo doon bindu tey li ciy njuumte ñoo ngi koy jéggalu suñu boroom in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin